aus billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen euh, jaajëfal bu baax a baax ci bis bu sell bi nga xam ne ñi ngi ko ànd ak muy sant Serigne Saliou a ah, d'abord ñu présenté wu euh, Ahmadou Ndiaye la ñuy wax doon membre ci daara barakatul maayidi di ziar mbokk taalibe di ziar jëwriñ ci nekk yëpp comme nin ko baaxoo di defee tey jii ñu ngi waat fii ci lycée de Mbacké ànd ak euh, tubaa Touba Touba Vision bi nga xam ne moom lañ daan faral di àndal ci bis mel nii mu ñuy jëlal lépp loo xam ne day xew ci bis bi. démb ñëwoon na fi def ñu interview tey tamit ci suba ba léegi mi ngi ñu ànd ak ñun liggéey bi ñu koy wéyal ba léegi te bis bi mu commencé ba léegi yaakaar naa programme bi mi ngi dox niñ ko daan baaxoo defee. commencé nañ ko ci njàngum alxuraan am tout tànk yoo xam ne ñoo ñëw wàccee kaamil bi 28 kaamil yi nga xam ne moom lañ daan dañ ko daan def avant cant gi bis bi ñu daal di jàng xatmu bi loolu wéyal nañ ko durus fi ay xasida programme bi mi ngi mi ngi continuer nin ko baaxoo def kuréelu xasida yi ñu ngi daw ba léegi tamit am na yeneen waxtaan yoo xamante ni dina fi am ci kanam boo xoolee tamit mbokk taalibe yi ñi ngi ñëw bu baax gan ñi élèves ñoom ñëpp ñi ngi ñi ngi ñëw parents d'élèves yi aussi ñi ngi ñëw te ñi ngi xaarandi ay yeneen gan ak kilifa yoo xamante ni xëy na ci kanam dinañ ñëw ah ci loolu tamit muy bis boo xam ne bis xéewal la bis cant la ndax boo xoolee mbokk taalibe yi ñu ci fii lañ nekkoon waaye dem nañ ba léegi xëy na bokkatuñ fu ne waaye bis bu ñëwee ñoom ñëpp dañu ñëw retrouvaille am muy loo xamante lu neex la te lépp nag ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa rek la aju ndax lépp cofeel gi Sëriñ la te daara ji moo leen nàmpatal ci loolu muy daara joo xamante nii boo fi nekkee lu mu sori foofu nekk ak lu mu sori sori xew yi bu ñëwee da ngay da ngay ñëw ndax liñ fiy def lépp aju ci sunna la def ak li nga xam ne mooy digley Serigne Touba Xaadim Rasul kon xam naa noonu ñu leen ko waxee tamit commission culturelle ni ñu ko baaxoon defee dañuy def exposition ñoom tamit at bu jot ci li nga xamante ne nii mooy njàngaleem Serigne Touba ren nag ñu indil ñu woon ay innovation ci li nga xamante ne nii dafa lool loo xam ne dafa raar muy lu mel na ay sang néew ak jullee néew ak ni ñuy sangoo farata ak ay tudd doom